man nag may wax ne dafa mel ni sëriñ bi dafa teeloon a bàyyi xel yàqu-yàqu yi jamono ni moom ak tarbiyaam bu ko téyelee boppam ñëm yar mu sol ko ci ñoom bañ mën a tarbiya yi adduna kenn dafi sax te kon danañ dem ba jëmmi jamono am na ñuy taxaw taxawaayu ne dañuy tarbiya te duñ mën a tarbiya bu baa dañuy yàq nit ñi moo taxoon mu fab mbootum tarbiyaam def ko ci biir xas bi kon loolu xam ko lu am solo la pour murid bi xam xasida li muy tekki ci ak murit dafa taxaw taxawaayu jëmmi Sëriñ Tuubaa ci defar nit boo tax mu wax ni jekk dafa mel ni sax dafa jëkk ñaan ni wajaal ishaaraati ka cheikhi tarbiya wajaal ibaaraati ka cheikhi tarxiya ginnaaw bi mu wax ni kitaabati te dafa ñaan ni ngay def samay ishaara mu mel ni sëriñu tarbiya samay wax mu mel ni sëriñu tarbiya ginnaaw bi mu wax ni sama borom may na kitaabati qaa'imatun maqaama cheikhin muraqin yahabul maqaama sama mbind taxaw na taxawaayu sëriñ bi tarqiya buy maye maqaam ginnaaw bi mu ne kitaabati faaqat siyooxat tarbiya wa kulla xayr sama mbind kawe na sëriñu tarbiya kawe na wépp yiw wasu yoo xa tarxi kawe na yëpp sëriñu tarxi loolu kon xam gi dafay am solo ci mool bi ngir mu xam xasida taxawaay bi mu am xam ne taxawaay yu jëmmi Sëriñ Tuubaa la taxawee ci defar te it mooy résultat doxub sëriñ bi ndax sëriñ bi eh, bi muy doog a tàmbali dafa wax ni wër naa fu ne wala mu azan منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل غائبا musuma dañ di sàkku maarifa mooy ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya di war ci diggante borom xam-xam yi ak wàll yi bi niyyati wa amali wa xawliya ànd ak sama yéene ak sama jëf ak sama wax xatan salaftu عام جاي ساسن الى خدمه خير العالمين زل الله من نك بما دابا اتوم اي ساسن تي لا ول بتي نك دم تي خدمه خدمه بي نك أنا تاغ يانتي اك جولي سي موم نيا لي موي خدمه خسي دي كون بو جو خولي جوروم بن خاج تاغ لا اك جولي أنا يانتي dikr mooy tudd yàlla ak asukru te mooy sant yàlla ak adduaa te mooy ñaan bi ci des mooy jihaad xasida am na ci xaaj boo xam ne jihaad la xasida yi tagg yi wala xasida yi salawaan yi jaalibati maraaxib ci la tey siirul ansir ci la ma faatiwul bisiri noonu nur Daarayni yep ay khassida yo xamni khassida salawat la khassida tagay tàgg yi jës bu mooy muqaddima ci la way yep do ci lu ci dama ciy tudd am rek waye ak ya ci aju khassida khassida yi ma jëkk tudd mu jàll ba tumuraate def ci ñaan ni sama borom na nga def khassida gi kep ku fay jang na dox sa digganteeg lepp lu ñu wara war yedde ak yonentabe bi daan digle ni yéen xale yi ku ci mat a denc soxna demal denc ku ci amul loo denc nag denc naa la ngay woor ndax koor boobu dina dox si diggante yu dul noonu ci xasi dëgg ni wajaal kitaabatiya fawqa sawmi wa xayrihi min maaniaati law sama mbind na ko def mu kawee koor ak lu koor ci liy tere nit def luñ ko yedd kon ba tey loolu loolu xasi dëggoogul mat a fonk la ngir bari na fu mu yóbbu nit bari na lu nit ki waroon def lu mu dox diggante ak moom ba mel ni sëriñu tarbiya bu nekk ci kanam naka noonu xasida googu mu ñaan ci ni suñu borom képp ku wattu xasida gi mbaa mu fexe ba xasida gi am ak nu mu amee taxsil mooy nga bind ko walla nga mool ko di ko tasaare walla nga di ko jënd di ko tasaare noo fexe ba xasida gi di am ci àdduna bi maa ngi ñaan ki def lool suñu borom may ko ay mébétam yépp lu mébét nag ko may ci barke bent loolu sëñ bi ñaan na ko ci xasida suñu borom képp kuy jàng xasida gi yàlla na ko jéggal lépp luy ay bàkkaar te nooyee lal ko lépp lu jafe yombalal ko lépp lu jafe wax fir yaa xafóor li xaari iihi wa alin bihi nafoor noonu day ni mu boole ci diggante julli ak tagg ak sant li ci ne boole naa cant gi buñ ko waxee cant buñ ko waxee mooy li muy wax ni sama borom may na ma ko loolu di niru ndam sant lay teg ndax yàlla dafa wax yonent bi ci alxuraan ni ko amma bi ni'mati rabbika fa haddis del waxtaane xéewal yi la suñu borom def kon waxtaanee ay xéwal yi ñu defal loolu ak cant lay tekki waaye tekkul ndam mu wax ci biir xasida googu nii suñu borom may na ma bépp bés saw bépp bés kawe julli guñ nangu ak koor guñ nangu bi ka kulla shahri dar sama wenn weer wu ne def nga ko mu kawe jaamu yàlla yi mbindeef yëpp ci seen ngir seen ngir dund jës bu ak mu waaye ba mu xaddima ci xasida tag yi lañ bokk am na sama benn baay bu ñuy wax sëñ Modou Gelo Ngal daan wax ni dafa wax ni dafa am kàddu gu wax ak moom mel ni xeetu ilham la mu ne kàddu gu yëpp mu wax ak moom ne ko wilaay bu ne nit mën a jaagaan yow saxal ci des bi ak mooy mu xadimaat xasida wax di midaadi ñu tëgg ko mooy te Jafar Atahullah dañuy wax ne sëriñ bi dina la wax ne fu ñu ko jàngee yonent bi dina fa ree mbaa muñ fa te ku koy saxoo jàng yi bala ngaa dee da am ngërëm yàlla mooy li gën a lépp yi dafa mat a xam muy secret yooyu ci xasida yi pour nga xam ne nga nga koy fonk jihaad nag mu mel ne diir nekk ci géej gi mbind yi mu daan bind jihaad la dañoo wax ni euh, jamono bu ne dañ daan am ay jafe-jafe dañ daan am jafe-jafe jafe-jafe yi dañ daan am ay labbe yoo xam ne lu leen jaaxal dañu leen koy laaj waaye ñoom buñ defee seen i gëstu dañ leen di wax ne jafe-jafe yi ci kii la jóge te li fii jëlee wu ko fa doon am jàll loolu sëñ bi mel noonu leeral na ko ndax dafa wax ni dafa am xasida gu mu tànki xasida gu mu tàmbulee ji ni li ya'lama an-naadiru anna xatti ila ilaahina ahabbu xatti de kuy xool ku ne na xam ne sama mbind bu gën a jàll mbind mu mën a daal ne jaaxatu bil xatti aduwallahi ashrata aqwaam bi zikrillah min aami ay sasin li aami kasasi wa qabilal jamia am ak sasi mu ne jihaad naa ci mbind lu mat fukki at di tàmbale ci atum ay sasin ba ci atum kasasi wa qabilal jamia am ak sasi jamono yi si suñu borom nangu lépp lu ma doon def ci jihaad waaye dafa wax ci xasida googu ni law an na ni lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaaba la maata bil wabaa'i kullu kaafiri illam yatuubu lil ilaahi alxaafiri dafa wax ne su ma bàyyiwutoon mi rek di jihaad ak yéefar yi kon yéefar yëpp danañu dee ci mbas buñ tuubut لكن عفوت عن جميع الناس وعلى دما ديغال نيت نيب لي واتي باخين مو لي كان خناس نيب ديغال دا لي غير جام يالا كون دا فمو جي صاح جهاد جوجو كون داف مو ام لور جو جام نيوم دا فمو جي بايكو ديغال لي لب دا ما صاح بودي خاسدي نيان يي لو الفوزي لي تي سيرن بي نيان sa xel dëkkulul daj sax ba nga ko ñaan kon ba tey mat naa fonk ngir loolu ak mat bu sifaay ci wàllu wér-gi-yaram yooyu yëpp nag day dugg ci maanaam euh, sikkar maanaam sikkar li nga ñaan wala julli ci yonente bi wala tagg wala sant yooyu yëpp day dugg ci baatu euh, zikr tudd yàlla moo tax lépp lu borom xam-xam yi wax ci yi tudd yàlla wax na ko ci xasida yi mi ngi ci buñ ne day dàq seytaane wax na ne ida katabtu aw qaratu har wala iblisu fawran ma aman taxawal buñ ne sikar dafay dàq seytaane sëriñ bi wax na ci xasida mi saa moo bindee mbaa ma jàng iblis dafay daw ba sori sori ne sikar su bari day maye ngërëmul yàlla sëriñ bi wax na ci xasida yi radiya anni allahu wal muxtaaru wa hamiyat kulliyati astar sama borom gërëm na yonent bi gërëm na te sama lépp nit ay sutura aar na wax ni yaa ummani ridwaan min kulli wijhat ngërëm wet gu ne rek moom moo fay bàyyi te ngërëm di yàlla mooy li gën a rëy ci lu ab jullit war a sàkk suufi jëkk yi daan digal seeni taalibe ñuy bari du ñuy dugg ay xalawaat di wéet جامو يال سيكا دي جول دي وور واي سيرين موم خام لي سماي خاسيدا مننا ايغال نيت كي تي يالا دوك